xale bi nga xamante ni keroog arène nationale moo ko toj bu jàllee yuuxu yu bari bu rombee yuuxu yu bari waaye laata loolu damay nuyu ki ma jël si di Thiaw Star dama koy nuyu di ko bëggee bu baax di ko ñaanal jàmm ju bari waaye bureau bi maa ngi koy nuyu laata dañuy ñëw waxataan ak champion bi ñu naan ko Mor li waral Mor bi dinañ ko xam kan mooy Mor dañ ko xam ak li tax mbooloo gu bari bu jugee ñu topp ko dinañ ko xam salaamaaleykum champion maa ngi fay naa la jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba sant yàlla. julli si Yonent bi sant sama ñaari waajur di sant sama sëriñ Sëriñ Abdou Karim Mbacke bu baax a baax a baax a baax a baax ginnaaw bañ la nuyoo am nga ndam balaa ñu ñëw ci ndam bi sax bu ñu bëggoon xam kan mooy Mor Kang Kang loo ñu mën a wax ci Mor waaw balaa maa wax dara damay sant sama coach sama père père Maxi Maxi moo def si man lu bari ba ma nekkee xale ba léegi moo ma tete si saalam bii kon dama koy wax ne ko moom na jàpp ma jàpp ndax sama papa la barki Serigne Fallou moo ma defal lépp billaahi entraînement yi nga gis si man nii moom ma ko defal wasalaam. li ñu naan ku santul nit doo sant yàlla waaye laata ñëw ci combat bi paas rek sa jaar-jaar bu ñu mën a waxataan tuuti sa jaar-jaar. sama jaar-jaar non sama jaar-jaar moom metti na mettiwul ndax man. dund ma daal lu metti lu metti moom dund ma ko ndax bi ma ñëwee dama fi fekk samay mag yu baax ñu tete ma teg ma ci yoon waaw. nga dugg ci làmb ku ne xam ne ne làmb dafa nekk milieu bu mett bu bëri ay buuxante nga nekk xale di leen fàttali am na 9 combats 9 victoire mosul dégg muñal te yàlla na yéex new nag du am ndax làmb moom dangay làmb rek mën na am nga daj mën na am doo daj lan moo la gën a marqué sa carrière làmb. waa sama carrière làmb lan moo ma ci gën a marqué. non gisaguma ko si. ban moo la gën a neex. ban combat moo ma gën a neex mooy combat bi mu jóge tey. lu bees neex ba mu saf dee lan moo tax waral. waaw combat bii dafa bari woon coow bari woon tamit ma dégg ci lu ne tamit di muñ te jàpp te yàlla tax dégg naa ci lu ne dégg naa sax ñu ne Mor combat bii la première defetam ndeysaan ma sant ko yàlla lool nag bi ma amee ndam dama sant yàlla lool waaw. mu nekk combat boo xam dafa bari woon polémique sa adversaire du ma ne sax dafa la tuutal mais daf la ñeme woon ba nga xamante ni dañu foog ne jour boobu da lay laxas ak sànni. non ñeme ma si biir nit ñi nii neex na waaye bu ñu tëjee barrière wax naa ko bu ñu tëjee barrière la fay neex man naa koy def waaw. mën maa ñëw ci combat la moo tax xaaroo arbitre siffle rek nga dox ci sa adversaire loolu lu la digal la wala yow yaa mel noonu sa xadar la. non liñ ma entraînement la ndax sama coach su mag si dama entraînement loolu doy waar gis loo xamante ni mosu ko gis si man chaque jour moo koy ñëw di ko numé di ko numé ko di ko jegeeñ mu naan maa nii ak nii ngay def kala bi ma daane waa ji sax moom moo ko jox waaw. kon coach moo bëree bëree bi. moo bëree bëree bi moom moom moo ko bëree. balaa ñuy ñëw si naan kan moo nekk sa kanam ku nekk sa ginnaaw ñu am lu ñu dégg dañ koo for ci béy weewu béy ñu ne moo Kang Kang da doon 15 da doon lii wala yëfu xale yi nga doon wax léegi daaw nga dikkal ci mu gën a <laughs> waaw loolu loolu dëgg la loolu bi ma nekkee tout temps la ba bëree gu ma xaaju ma bëree boobu suuf pont wàqi naan fii la woon loolu moom bëree boobu bëreewu ma waaye nag bi ma bi ma commencé takk ngem caw caw star premier mu takkal ma ngem moo ko Habib ay ñoom taala buraaco ñoo ma takkal ngem suur boobu noonu biteel yi ma yi ma yóbbu lépp guro la dañ ko yëy rek dugal si biir xajom xëjom yi yaa ma gën a xam waa nappe ko gars yi ak temps yi boobu si ji fukk ak juróom yi si fukk ak juróom yi ñoo génn ñu defal ma ko si may naan di xëppoo. Mor Kanka mu may bëgg a rey Mor Kanka nga ne lan nga doon yóbbu. zi zi ak guro yëngal bu mu far rek may xel di xëppoo di naan terrain mandee fii waaw. waaw ma dem daan gars di ñëw si laa nag si laa bàyyee loolu lépp waaw nag concentré nekk si samay entraînement waaw yàlla dimbali ba heure bii. ndax booy xool def naa si àll bi neuf combats bëre dóor mosuma dégg mu ñël foofu arène bi tamit ma def ko si noonu mosuma dégg mu ñël kon damay sant yàlla bu baax. balaa ngay génn ci li may wax noonu loolu noonu mu nekk benn phénomène ci jeunesse bi yow mi ci dugg ba génn ci lan ngay wax xale yi ci nekk fu mu ne nii. waaw loolu nan ko bàyyi loolu nan ko bàyyi loolu baaxut loolu moom nan ko bàyyi neex na loolu nag waaye nan ko bàyyi. waaw neex na loolu loolu boo koy def nii da ngay ne asamaan si sax bu doon wàcc nga téye ko. Modou Lo lu muy saf. ah neex na de xaw ma kan moo ko njëkk a génne waaye ki ko njëkk a génne yàq na affaire de yàq na xale yi de moom. xam nga xam nga laa bëgg ndax sa Francis loolu yàq na xale yi buñ jàllee ci loolu nga dugg ci làmb fu ne nii moom hmm? ku la bañ ci làmb daf la ragal yaa ngi ci digg espoir yi kan moo nekk sa kanam. non man ñi nekk sama kanam bari na loolu moom aw lu ma ciy wax. dégg naa sax nga naan da ngay laaj Ada Fass. laaj kenn man maa ngi ci sama ginnaaw staff luñ ma digal moom laay def sama ménageur bu ma woon na ma tey diw yaa xale bi sax man ma dem bëri ji ko. barke Sëñ Fallu pare naa pour bëreeg ñëpp bëgg nag fi mu nekk avance ndax fi mu ne dama bëgg saison bi mu si ñaari yoon balaa tëj. bëgg avance man maa ngi beneen avance wala. waaw. man maa ngi koy dégg maa ngi dégg ñu naan Mor jël na avance Mor jëlul avance non promoteurs yi ñoo ngi wax nag waaye benn avance duggagut waaw benn avance duggagut. mais instant bi daal ku ñëw nga jël wala ngaa bëgg xaar luur yi waaw ku ñëw ma jël ku ñëw ma jël bàyyi mu samay de lamb ji instant yi morom amatut ñëpp ñoo soxla te dañoo bëgg a dem sa kaw kon kun ma jox ko baax man dinaa ko jël dinaa ko nekk mbëru bawol bawol yi ñu gis stade ba keroog. tuutal ma benn benn mbër mais grand combat bi sax yaa ngi ëpp mbooloo car macha allah lan moo waral lool. te booy xool awma ku ma gëndal bolok barki siriñ Fallou combat bi daanaka awma si jàppale xam nga ñan ma si ñan ñan ñoo ma si jàppale ñi may jox cent franc yi ak mille franc yeeg seeni deux ñoo ñooñu laa si am jàppale waaye bis boo déggee ne moor gënal nañ ko ñetti bolok wala ñaari bolok paa dëkk bi sax dinañ ñëw. waa loolu moom cër boobu man noonu dama leen ko jox. lan war a loolu da ngaa da leen jege wala dafa am yaakaar bu ñu yaakaar ci yow wala la. noo dama xam nga li ñuy wax xale boo bëggee gudd fan dangay jox mag ñi lanu moom man damaa jox mag ñi lanu moom jox xale yi lanu moom boo demoon dëkk ba tey su may foo mag xale yi rekay foo jàppal bàyyil indil bàyyil loolu rek ngay dégg waaw. Mor Kang mbëru Bawol Bawol yi combat bu mag di am le 19 décembre diggante Tapha ak Boy ñaa lan nga gis ci combat boobu. waaw di ñaanal di ñaanal tafatin mu am ndam rek. si kàttan lu tax man bawal bawal laa man damay sot dégg nga li ma la wax nee naa la man maay caatu bawal bawal yi man maay seen caat. mais boo ñaanee mu tam bawal la dëkk de. waaw booy ñaa bawal la dëkk. waaye ñoom dañ koy mbubboo rek bawal piir 100 pour cent yi boo ko gisee nga xam ne tafatin la waaw. boo ko conseillé mu ne nii nga nekk ci wetam a 5 minutes avant combat bi loo koy conseillé. bu ma ko doon na entraînement rek ba taxaw bu entraînement ba taxaw li ci des mat la. Boy Niang Boy Niang ah, wàcc ci tànkam diriku rek bañ koo may dara Tapha xale la tamit booy Niang tamit xale la waaw waaye xam naa Tapha ko jiitu si làmb nag waaye ñoom ñaar man su ma doon Tapha moom duma ko may dara boor bi ne firit jàmm jeex na du ko may dara damay toggi samay tànk diriku wuti ko waaw man maa wax loolu. Boy ñaa dañu gis si moom dafa mën a xeex te day dóor du xool fi muy dóor di fayu est-ce que bu xeexee dina am dara. booy ñaa day benn bennal booy ñaa boo ko toppee ci benn bennal yi mu rey la booy ñaa doo ko may booy ñaa droitam rek lay sànni booy ñaa mosoo gis góosam mu jóg droitam rek lay sànni tafaa nag kon loolu war na ko mën a jàngal ba nga xamante ni moo loolu. pied yi kii pied gauche la kii pied droite kon tafaa bu xeexee bu nu xeexee tafaa mën na ko arranger waaw. ñi naan moo kànk dafa mystique gars yi mystique lay jàpp di leen daan loolu est-ce am na. mystique Mor Kànk gëm boppam yow Mor Kànk boo ko gis sax nga xam ne ni muy bëreeg booy moo loolu dafa yàgg bëre man booy xool daanaka sama carrière bi may sàmm lépp bëre laa ko def waaw. du xeex gars yi ñoo taxawut gars yi ñoo taxawul pour xeex. di booy xool keroog booy yëmbal taxawul pour bëgg jël décision xeex ah, moo tax tamit man. boo xoolee stade bi nga xam ne lépp man la kon loolu waruma yàggal gars yi ndax dañoo waxam ne combat bii combat amateur la kon waruñu fa yàggal kenn. waaw mooy noonu bi ma dalee si kawam daan ko yàlla may ma ndam waaw di ko wax ne moom bu amaatee combat yàlla na ko yàlla may ndam. li nga doon def man maa ma sàcc laaj la nga yenn xaw ma ndaa lañ koy xaw ma def va et vient loolu lan la woon da nga doon yëngal supporters yi wala ci làmb ji la bokkoon. non man man nee la man su ma takkee ngem. damay gumba tëx dootuma dégg dara waa loolu loolu dëgg la ndax booy xool li ma topp man fulla laa ci war a def ñun danoo paas ñëw li mu waxan danoo paas ñëw ñun danoo paas ñëw kon samay supporters fa nu jëm danoo sori waru ñoo yóbbaale mer kontaan te leen war a yóbbu nga xamante ni paa yi dëgg ba tamit ñoo ngi toog di ma xaar yor seeni kurus kon ñooñu dama di sant di leen gërëm boo gisee ma gàddu ndaa loolu noonu dox jéego dama xam ne tey jii bis bii nii noonu du bisu ñàkk waaw. mooy noonu nag moo Kër Kër dañ koy bëggee bu baax a baax lan moo lan ban message ngay lancé balaa ñu tëj émission bi. ah ban message lay lancé waaw di wax ne waa Bawol na nu gën a jàppale seen doom man moor Kanka na nu jàppale seen doom buñ ma jàppale dinañ am champion. ñaa la man nekkaguma champion nekkaguma dara damay soog a door rek nañ ma jàppale te yàlla tax Bawol nañu mànkoo jàppale seen mbëri Bawol yi. ndax ñun moom nu am baw bawal ñuy tiitaroo lu ñuy sagoo di sant juróom-ñaari njiifan paal yëpp di sant waa Touba di sant Touba Mbakke bu baax a baax a baax di sant Talla Fall ma fa dëkk Rima wala jógee papaam Rima wala jógee dem toxu Touba waaye maa ngi koy sant ndax Talla léppam da koo bàyyi ngir man dégg na wax june booy xool otoom daa paan ndax ndax ngir man wóor na Serigne Touba defal ma ko dara mësuma ko jox dara moom moo may jox waaye man duma ko jox. kon na gën a jàpp bu mu déglu waxe nit ñi ndax waxe nit ñi boo dégloo ñu tardé dama ko jàpp ne sama mag ji ma bokkal ndey ak baay di sant waa xombal di sant waa kër coon bàyyiwuma newraan ba përgin riimaaw reefan bàyyiwuma ndreb zowal caajaay di sant euh, Balla Dia waa bool gépp daal maa ngi sant su ma limbee damay juum waaw di sant waa mas waa marché Castor di sant waa cité Mbéssine ñoom ñëpp maa ngi sant di sant sama ñaari boo yoo xamante ne ni dañu sonn si man muy soq ak Baye Mag Jalaaw maa ngi sant bu baax a baax a baax a baax di leen wax na daal képp foo xamante ni bawal bawal yaa nga fa maa ngi lay sant di la gërëm gis naa ñaan yi bu baax a baax a baax a baax. tàggatoo looy say supporter. waaw sama supporter di leen wax ne combat bi xam naa ne balaa semaine balaa semaine bii di génn combat bi dina taxaw incha allah fi ne nag moom dama bëgg a tooyaat ngem li waaw. non pare naa ndax mooy sama liggéey booy xool suba incha ma tam li fii entraînement waaw. Mor Kankang dañ koy bëggee bu baax mais waxuma Mor Kankang fa la jógee de Mor Kankang bi. benn dëkk bu nekk si ginnaaw Guinée la. waaw benn buur bu mag moo fa nekk tudde dëkk bi Kankang. léegi nag mu ne ma jëlal turu Kankang moo tax ma jël ko buur boobu ba léegi moo ngi naa maa ñëw fa waaye mënugu mu faa dem xam naa ne bu ma fa demee moom samay samay yëf dina gën a saawaan baawaan waaw dinaa la baale dañ koy remercier bu baax a baax moom Kankang waaye kenn du Balla Dia bala sama bro boobu maa koy nuyu di ko ñaanal jàmm ah samay saar bi caw maa ngi bég ci yow bu baax kenn du waaye di béggee di Daara bu baax sëriñ Daara maa ngi koy sant maa ngi koy sant bu baax di sant Moussa Ndiamé ñoom mbay Thiaw ñoom Maam Mbaye ñoom ñëpp maa leen di sant ay muut kan ñoom ñëpp maa ngi leen di sant barke Serigne Fall waaw fasaale naa ñëpp daal ñëpp daal waaw waa saal bi yëpp sant naa leen tamit di leen gërëm di wax na sama père moo ngi ne di entraînement gis naa taxawaayam gis naa taxawaayam bu baax di sant waa Sall bépp daal aw ma seen fay waaw. merci champion di ko ñaanal ndam lim am mu jikko ah te yeneen ndam topp ci bu bëreewul la sama mag jiidi kee bi ndax temps yii nee mbër la waaye damay sant sama équipe technique bi ah Mansour Fall moom moo maane umulaay sama gan bi bienvenue dalal ak jàmm ci kër gi damay bëgg ci yow waaye mention spéciale Leewtoo production Leewtoo TV le 19 Boy Niang Tapha Tine ko xaal doon ñoom ñaar saakees boo ñaar jàpp jël na tafaatin dóor na tafaatin a ngi dóor ci suuf attention saakees ak boo ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kaw saakees boo daan na